برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام وما من دابة غير أجيبك الله نرى ما نرى ترى في lu may yàlla waral na ko def ne yàlla dara waru ko waaye waral na ko boppam ci kaw baaxam ñu ne alaaji maanaam min lañ koy taawee ilaa àlala nga tukka nag yàlla rek faa war fëgal ndax suñ tëddee xalaal am lu ñu wax ak yàlla te yàlla moom dara waru ko waaye baaxam moo tax mu warlu ko ba mel ni daf ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla yónni yonent yàlla Muusaa naka la xasee ñëw xam nga ne dafa rañaane Madyana bi ñibbi si Misra ànd jabaram jabaram yóbbu ba tële yuuru leen nekk ci xaalab kett leen jabar ja far wasin te muy guddi sedd goo xam ne amuñ safara suñ jaaroo Muusaa ne mu ngay dem ci safara wu jabaram wum taalal jabaram pour mu jaaroo ak it xam yoon yi ndax mu gis ku wan yoon dem tasa yàlla yàlla far ko yéene jëfaraani kalam bi daj jabaram bu ko wàccee ci àll nekk boobu dem di dox yeneen bi ko yàlla yéene ñooñu nañuy def yàlla daal di ko wan aw doj ne ko dóoral doj wi saxet wi mu dóor doj wa gis aw doj ca mu ne dóor waaw mu toj weneen mu dóor ko xeet mu dóor ko mu toj mu fekk aw saxal nga jëm yit dañu ñetteeloo waaw boo xam ne yàlla nga koy xol ah, aw rab mi ngi koy lekk waa yàlla dégg na yonent yàlla Muusaa nag mu naa ah, sant naa yàlla li nga xam ne fàttewut ci biir kóot kóot yi yi nga xam ne ci laa nekk rek ba di ma jox sama wërsëg de waaw Moussa xam ne waaw ki mën a dundal waaw sax woowu ci diggu kóot kóot kóot yi doj yooyu mën naa dundal jabar yonent yàlla Moussa ki ca digg nga àll ba rek laa waaw moo tax foofa la demee Moussa geesootu jabaram fàttali kóotu ko dañ ñeen fukki Firawna ba Firawna alaku ba Firawna alaku la soog a fàttaliku ne bàyyi woon na jabaram ca àll ba rek de ñu dem di ko seeti rek takk na bàyyam jënd na ko nag ko jëli mu ñibbi si ak doom ñeneen noonu ñu doxale yàlla ak ne picc moo ne dafa silmaxa ne dégg mu ne mi naa yow yàlla di ma ci maxal waaye dañu ci ma dara wër na benn ma def ñooñu gis aw ñi réew naaw daal dugg ci gémmiñ picc mi picc mi war na ko wala naqar bi war na te sant naa yàlla mi nga xam ne lu lu tax xam ne ko ñaan waa lu mu doon rajo waa bi waaw yéen dina la wax dégg nga picc mi wax ñu ne moo tax ba yàlla ngi wax na waman daa batin yéen ak yu kët bi la ci suuf lépp luy dox rek dañuy kët ഇതാണല്ലാതെ ndarakugelak yàlla yàlla gën a xam mustaqarra sa waaye ku nekk yàlla xam na fi nga nekk fii ci àddina ku nekk xam na fa nga dëkk xam na sa néeg xam na foo toll moom du la wàcc mukk lu yàgg yàgg dina la fa fekk ci booleeg sa sa sa waaye ba nga nekk gisa ndigal baay juddoo gu la joxagu la gisa romam ak yaay ba nga nekk gisa biiru jubboogu la lépp xam na ko du sànq kenn waxtu wu nekk ma lay sàmm wa mustawda jëm ci waa seen gannaaw boo xamee génn nga ci sa roo moom day waaw ba ba ngay dem ci sa bammeel waaw foo toll rek yàlla xam na foo nekk de du la sànq benn bés ki nga xam ne waaw moo la bala nga gisa di la day mu ne dundal foofa ba génne la ci xarañam nga nga ñëw ci léegi bu juddoo kay talal ay loxo ndax di wane ne indiwuma dara la ko dara sa booba nga juddoo nag ba ci jotaay bi ñu toog amul benn bés bu yàlla ma sa sant kenn ci ñun ba joxe ko ci buumee waaw la ndax kum naan wala lu jiitu sa raam rek laa waxee ruum gu nekk yàlla ko wàccil malaaka moo xam ne mu ngay ñaan yàlla bu ñu fatal yàlla bu ñu fatal ruum ak a malaaka nga ca dëkk di ñaan yàlla maa ngi toqante yàlla maa ngi toqante doo booloo du xam mukk lu mooy fasa su yàlla nangoo ñaan malaaka mooma su yàlla nangoo ñaan malaaka mooma daal di rafetal jigéen li ci bëti jëkkatam waaye jëkkatam daal di booloo ak moom feeg rafetal ak yàlla googu amu booloo mënul nekk waa ak luñ ca def def leen itte su ko yàlla ba toqante man yi ba wàcce yaa am malaaka ma daal di ko téye ne yàlla ndax danga ci bind mbindeef am doo ci bind mbindeef mu ne ko danaa ci bind mbindeef wala mu ne ko duma ci bind mbindeef rek su jotu bind mbindeef mu bàyyi ko su fekkee dina ci bind mbindeef mu ne ko góor lay doon jigéen fay taxaam fay taxaari waaw fay bëri wërsëg am fay néew ne ma xam fa la ko ndeyam yooyu yépp sotti na wërsëg wi ak dig bi waaw ak taxaar taxaari yépp sotti na nga soog a dugg ci sa biiram ndey waaw kon ana la jàpp barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan